ñuy wax ne murid saadix la ñu tudde ko murid saadix xam nga am na ci yoon yoon xam ne da nga oh, mu doy war dégg ñuy wax ne murid saadix la boo demee fekk wax googu ñuy wax ne murid saadix la di dëgg da nga fekk muy dox doxin maam Cheikh Ibra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

di ñaan sunu borom defal ko fan gudd lool te mu ànd ak wér di jaar mboolem mbokki julliti ak mbokki taalibe yi ci émission bu bi ñu baaxee def kon talaata bu jot si waxtu wi jagleel ko maam Cheikh Ibrahima Fall di si ànd ak sunu sëriñ sunu jëwriñ tey yàlla dogal ñu fas yéene kon waxtaan ci diggante bu mat diggante di diggante maam Cheikh Ibrahima Fall ak sëriñ Fallu Mbàkke Cheikh Mouhamadou Fadel Mbàkke mais xëy ni mooy euh, borom Kazu Rajab ñaar fukki fan ak euh, juróom-ñaar yi niñ koy waxee ci kàddu ni daa daan wax naan ah yan sallallahu alayhi wa de moom dana lay rek mën a cëpp loolu yëpp incha allah fas yéene see ànd ak kon ñoo xamante ni si njaboot gi lañ. Mm-hmm. di njabootu Serigne Touba di njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall maam Mamadou Ndaw baay Fall ñu ngi lay ziar bu baax a baax di la wax salaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam euh, Serigne Aline Badara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 ñaanal baax Serigne Cheikh Jëmbu Fall di ñaan euh, mu yàgg fi waaye di jël mboolem nuyoo akub ziar ak ñaan mu jëm ci njabootu Cheikh Mouhamadul Fadal gépp teg ko ci loxol sëriñ Abo ñi nga xam ne tey moo fi Serigne Fallou di ñaan suñu borom yàggal ko lool ak mboolem rakkam yëpp nag. Euh, di ziar bu baax a baax comme ni nga ko waxee mbokki taalibe yi nga xam ne saa su ne dañuy bàyyi xel ci jotaay bi euh, saa bu talaata jotee ci waxtu wi muy jotaay jës bu murit ñu ci waxtaanee. Hmm. maam maam Cheikh Ibrahima Fall. Euh, di jaajëfal bu baax a baax mboolem rek ñi ñu àndal ñi ñu àndal liggéey bi yëpp nag sëñ Aline Batara mhm. ni nga ko waxee rek tey ñu fas yéene waxtaane eh, maam Cheikh Ibrahima Fall ak Serigne Fallou mhm. muy diggante boo xam ne li ñuy wax ñaari jëmmu kenn mhm. ndax euh, sëñ Fallou mooy Cheikh Ibra Cheikh Ibra itam mooy sëñ Fallou defe naa bu ñu demee ba ci kanam tuuti dina gën a leer bu ci yàlla àndee <laughs> jërëjëf Serigne Mamadou Ndaw Baye Fall tey nag taalibe bi moo dalal sëriñam lépp rek fas yéene waxtaane diggante boobu tey moom na na mbokk yi may ñu may ñu nopp rek te te déglu la bu baax a baax mën a taataan si diggante boobu ndax fas yéene nga see am indi lu am solo mm-hmm. waaye fas yéene kaa ànd ak ñii sunu bunt si yoon wi mm-hmm. euh, sëriñ Fallou Mbakke moom sëriñ bu Mbakke mm-hmm. di ko ziar bu baax a baax ak njabootu sëriñ bu gépp tàmbale ko si sëriñ Cheikh Amadou mi nga xëy ni mooy toog jotaay sëriñ Chouaïbou Mbakke Euh, Serigne Cheikh Say ñu ngi koy ziar bu baax a baax ak mboolem njaboot gi. waaye fas yéene si ànd ak kon euh, Serigne Aziz Fall moom Serigne Modou Saa Fall. moom maam Cheikh Ibrahima Fall. lu si nekk nag dinañ leeral lan moo tax ñu tànn jëmm yooyu. Mm. waaye dootuñu kon présenté. Mm. sëriñ Abdul Karim Mbakke borom makaarimal axlaaq mm-hmm. mi nga xamante ni déretu maam Cheikh Ibrahima Fall mooy daw ci moom ni mu koy waxee. Mm-hmm. kon ñooñu lañ fas yéene ànd ak maam euh, sëñ Maamu si si si jotaay bu am solo bi. Mm. ndax xam nga ni Serigne Fallou moom Serigne bu loolu ñu ko présenté. Mhm. ca tur wi it Serigne Fallou di turandoowu mhm. Serigne Fallou. Mhm. kon tànn nañ kenn si njaboot gi di turandoowu Serigne Fallou. waaye tànn Serigne Aziz Fall moom sëñ Modou Moussa Fall. ñi nga xamante ne Serigne Fallou moo ko yar. waaye tànn kenn si ki ñuy tudd ñi ñuy tudd di tudd Serigne Fallou. di Serigne Abdou Karim Mbacké bokk si njabootu Cheikh du Fadal bi. ñoom ñëpp ku si nekk mën ñoo indil. si diggante boobu diggante bu am solo kon sëñ Mamour. li ñuy njëkkee rek mooy. mam Cheikh Ibrahima Fall Cheikh Mouhamadou Fallen ñëpp ñu bàyyi Fall ak jëf jure ji nga xamanteni def nako jëmele ko ci mam Cheikh Ibrahima Fall ndax nak lépp ngir delloo ko njukkal ngir xamni mam maam Cheikh Ibrahima Fall mo wane Serigne Touba mais Serigne Aline Badara sha allah tubaarkàlla tay ni nga indé jotay bi dama dama defe ne xamna dañ la ko dé ndax dafa am loolu mom ken dula moy de dafa am loolu mom da am mom day day kulóoru ndax euh, daf ni ma déggee dafa mel ne da nga da nga tudd euh, leeru sëñ leeru sëñ Fallou. waaw ko sëñ Fallou euh, indi turandoo sëñ Fallou. Mm-hmm. indi ko sëñ Fallou yar. <laughs> waaw ñett ñooñu nag moom bu ñu feeñee rek day daal di mën sëkk jotaay bi day daal di couleur kon daanaka di commentaire wala di di dolli dara. Mm-hmm. dootul yomb. Mm-hmm. ndax bu fekkee ne sëñ Fallou mu sëriñ Soyebu sëriñ Fallou lañ ko dippee. moom tey tey it ñett ñi nga indi it tam day day ñoo xam ne wax la wax loo leen ci maam Cheikh Ibrahima Fall it dafa dafa war. dafa war ndax kenn ku ne boo jaxasoo moom rek xam na Cheikh Ibrahima lay dund. sëñ Fallou mu sëriñ son yi boo firnde la ci. te defe naa bu jàllee léegi da nga xam ne kii ab Baye Fall la moom. dëgg euh, sëñ Abdou Karim nag moom moom moom itam jëruñu di ko wax kenn ndax moom jaar na fi nit ñëpp fu ñu tegandoo nañ ci seen bët. Euh, doy na euh, sëñ sëñ Assis nag. moom sëñ Mourou Moussa Fall mooy juróom ci waaye sëñ Assane a ko yar moo ko yëkkati woon jox ko sëñ Fall moom nag mun naa la ne ay ponkal ñoo ko séq ci kër Serigne Touba ndax sëñ Cheikh Ibra Fall maam ndax moo jur baayam mm-hmm. waaye ñu fàttali ne itam euh, soxna Bintu Jenn mi waajuram wu jigéen sëñ Issa Jenn la ko jur ba pare Cheikh Ibra saar Njaañ di maam <laughs> kooku nag moom xam naa ne moom xam naa loolu moom am loolu du ma ko ñemee wax daal waaye mbir mi daal dafa dafa leer bu noppi waaw su ko defee kon li nga wax ci sëñ fàllu dafay nekk loo xam ne day wane rek nekkoon kon euh, sëñ Fallou mooy Cheikh Ibra loolu nag firnde li mooy li ma wax dama wax ne dama koy faral di wax saa su ne damay wax ne euh, sët yi sët yi ko seq rek maanaam diggante sëñ Fallou Cheikh Ibra rek sëñ Aline Badara dafa yéeme. ndax dama wax ne euh, ak kër soo ñëwee fekk ñett ñu bokk benn baay nga jël leen ba doy wëlbatikuwaat dolli ca koo xam ne it ñett ñi nga jël seen baay ak kii ñoo bokk ndey ak baay loolu doy na sëkk kon ñu xam ne yaa moom kër ka <laughs> waaw kër boo ñëwee fekk ñett ñu bokk benn baay nga jël leen yóbbu jëlaat koo xam ne it ba tey moo ñoo bokk baay ndax ñi nga yóbbu ak kii seen bàyyi bokk bàyyi. ndeysaan ñu bokk ndey ak bàyyi. gën kaa leeral sëñ maam loolu li ma ciy leeral defe naa sax ñi ñuy seetaan ñi xam ne ndax borom xam-xam yeeg ak macha allah ñi nga xam ne gëstu nañ taarix ci yoonu murit ñu ngi ñuy topp. Mm-hmm. Euh, mooy benn ki ci jiitu ki may njëkk a tudd mooy soxna maam say Fall ñu bokk Serigne Modou Aminta Fall benn wéyjur wu góor ak wu jigéen. ndeysaan di si ziar sëñ Abo Baye Fall waaw ma ngoog mm-hmm. soxna maam say Fall sëñ Modou Saa ko jur ak soxna Aminta Ñang soxna Aminta Ñang même waaw ñoom kooku kër maam Maafaal ñang la bokk. Mm-hmm. waaw kon te seen maam gis nga yàgg na Cheikh Ibra Fall. tey waaw. Mm-hmm. kon kooku mooy wajuru sëñ Abo mii tey e, di sëñ Fallou. Mm-hmm. kon sëñ Abo sëñ Touba ak Cheikh Ibra Fall seq. ndax ndax sëñ Fallou ko jur e, sëñ Mourou Saa Fall jur ndayam e, soxna maam say Fall maanaam soxna Adama Fall. doomu Serif Asana. mooy wayjuru sëñ xabbaan di ziar sëñ xabbaan waaw di ko ziar baax a mu sëñ fàllu mhm. soxna daba moom it doomi sëñ mënu saa fàll mooy wayjuru sëñ Saliou Mbàkke Baay Fàll moom fii ñu toll ci kaw suuf sëñ galas Mbàkke mooy xalifaam ñu ngi koy ziar bu baax a mhm. baax waaw mhm. sëñ euh, soxna bintu fàll mooy wayjuram euh, doomi sëñ Abdourahmane Fall mu sëñ mënu saa la ñooñu cëkki lañ bokk cëkki lañ dëkk waaw euh, di ci ziar baax sëñ gi yëpp soxna Boussa Fall itam noonu ba tey sëñ Fall loo ko yoroon kon euh, kër moom boo ñëwee fekk ñett ñu bokk benn baay <laughs> <laughs> wala boog ñeent mën nañ ñu bokk benn baay yaa moom kër ga moo tax kër sëñ falu mooy kër Cheikh Ibra duñ jeex buñ ko doon lim tey du fi jeex ci sët yoo xam ne Cheikh Ibra sëñ Fall ko seq ñii sëñ Modou Moussa Fall ñii sëñ Assane mm-hmm. ñii sëñ Mortala mm-hmm. ndax ba tey soxna Mbène Fallou doomi sëñ Fàllu sëñ Mortala Fall ko yoroon moo jur bàyyi ndaam Fall waaw na ko fi yàlla yàggal kon loolu rek sëñ Aliou li ñu ciy ubbee mooy pour wane ne kon mhm. eh, kër sëñ Fàllu mooy kër Cheikh Ibra ba pare itam te it nag pas-pas bi sëñ Fàllu amoon ci kër Cheikh Ibra Fall maanaam li mu bëggee woon Cheikh Ibra mhm. bëgg googu euh, firnde li dëgg-dëgg mooy ni mu lañ ak njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall ndax xam na loolu sax yàgg na mhm. diggante sëñ Fàllu Cheikh Ibra yàgg na ndax booba xëy na sëñ Fàllu du mag ci Zahir. Mhm. te boobu maam Cheikh Ibrahima Fall mooy daanaka bu fi mujj. waaye bi bi Cheikh Ibrahima demee sëñ Moussa Fall mi ko njëkk a wuutu jëf jëflante ak moom. Mhm. am na ci loolu yaa toog ma toog bàyyi daam daraame. ëpp na wax ñu ci làmmiñam nañu. defe woon naa ne àddina ci sëñ Moussa Fall la tàmbali ci la yem. Mhm. dëgg la de. nett ñu koroog bi ko sëñ Fallu sëñ Moussa Fall di jox sëñ Fallu fam jaar. loola moom du jar détaillé waaye pour wone ne kon ndekete sëñ bëggeel Cheikh Ibrahima Fall bi fi sëñ Modou Saa Fall toogee xalifa ba sëñ Ablaye Fall ndar toog xalifa lim jëflante ak ñoom. boo gisee nag ma tudd ñaar ñi sëñ Aliou Badara ñëpp nag ci yem. ñoom Cheikh Ibrahima yëpp waaye ñaar ñii rek dama ciy jël exemple. ndax boo jógee sëñ Modou Saa Fall da nga ñëw sëñ Mortala kasaalik waaye nag dama pour ma joxale exemple ci bu dee sëñ Modou Saa Fall pour wax rek fu bëri foo xam ne jaar na fa ak sëñ Fallou waaw. bu fekkente ne bi sëñ Mor sëñ sëñ sëñ Ablaye Fall Ndar mo pour carrière rek firnde la ci keroog bi sëñ Fallu ñëw carrière sengum ñaari néeg ya fa sëñ Ablaye def mhm. sëñ Fallu dal ci benn bi keroog mbooloo ma ndeysaan di di di di di di di di di di di di yëngu bàyyi seex taal galo den xàll ñu fekkee ma ko nettali yor yar ba di xàll ñii di xàll mbooloo bi eh, ngir ñu eh. may sëñ Fallu sëñ Fallu def fa ay fan ca carrière booba léegi mhm. ñu ko fekkee woon ngi dund ba tey kon naka jekk sëñ Fallu kuy topp maam Cheikh Ibrahima Fall la waaye nag loolu daa yàgg ndax ndax yàgg gi mooy euh, dégg nga ba tey ñu ne sëñ Tuubaa yabal na ko na ko demal sa bàyyi Cheikh Rafal jàngal ak taalibe loolu histoire la yàgg nañ ko naa li mu daan jotaay na lool macha allah waaw am na ci boo xam ne sax tey rek maa ngi ko doon nettali mhm. sëñ seex Mbay Yaaram moo nu ko wax dëgg nee na loolu sëñ Falloo ko ko nettali mhm. daa ñëw nuyu ko tedd ki moom Cheikh Mouhamadou Fadal nee na sëriñ bi joxoñ ko na ko jëlal ndab lee yaag sa baay Ibra Faal ngeen dem xéewlu mais bi ñu yegsee teg ndab li na ko sëriñ bi dafa wax nañ xéewlu mu ne ko xéewlul ba noppi jox ma mu ne ah la mu ne ko waaw waaye waxul nañ bokk <laughs> waaw ba noppi nee na bi mu xéewloo ba noppi Cheikh Ibra jël la ca des barkeeloo ko sëñ lu nee mm-hmm. ma ne ko nag dama lay laaj yow sans bàyyi Cheikh Ibra yow mi xamoon sëriñ bi démb xam ko tey mm-hmm. lan nga xam lu soppeeku ci moom nee na euh, Cheikh Ibrahima ma loolu da nga koy laaj nit man ab dof laa. sëñ Fallou nee ma ne ko waaye tontal ma tontal nit te bañ maa defal tontal dof. mu ne ma su la ko waxee boo ëllëg boo waxee dañ naan kooku ab dof la. nee ma ne ko waaye ma ne ko waaye defal ma tontal nit mu ne ma ndax jàng nga téere bi ñu wax ma Jinaan. tey Cheikh Ibrahima. waaw Cheikh Ibrahima du nit de sëñ Aliou. nee na ma ne ko jàng naa koy mu ne ma jikko yi ne ca téere boobee de. ak ak ak ak ak li ma xamoon ci moom. benn amaana lu soppiku ci moom mooy muuraay bi. da laa xamutoon ci moom. waaw nee na bi mu fa jógee nag nee na sëñ Fallou nee ma ñëw ci ku tedd ki. nee na mu ne man da ngeen a xewlu ba noppi ma ne ko waaye Ibra Fall di nanguwut a bokk man daf na ma xewlul ba noppi ma door a xewlu nee mhm. na sëñ Tuubaa jël kaalam nii teg ci kër daana na xam Ibra Fallum démb mooy moom tey ba tey <laughs> xam nga la sëñ Fallu jublu woon a xam kon mooy ñoom ñaar fu ñu àndee <laughs> <laughs> xam nga xam xam xam xam nga loolu leer na sëñ Tuubaa leeral na loola waaw ndax xam Ibra Fallum démb mooy tam kon nga xam ne kon ñoom ñaar àndi wuñ fii waaw waaw àndi wuñ fii waaw lu am solo mhm. àndi wuñ fii seen ànd bi sori na lool mhm. te soo xoolee ku si nekk lim chéré si moroom. Mhm. mooy wane ni ñoom ñaar àndewuñ fii. Mhm. xam naa ne dinañ si dikkaat léegi. Mhm. ànd ak Serigne Fallou Serigne Choyou. yaakaar naa ne bis boobu. di ko ziyaar bu baax a baax nag. mu mu am ay ay seere yu am solo yoo xamante ne def na ko. wanaat ñu pas-pasam. si maam Cheikh Ibrahima Fall. mu ngi amee woon ci njaareem bisu soxna maam ummi Fall mhm. am naa ni yaa ngi fa woon sax doon ko jottaleel kàddu yi ci lu am solo wax dëgg yàlla mhm. sëñ Mamour liggéey bu am solo am solo mhm. di ziar mboolem njabootuk soxna maam ummi Fall bi ñoom soxna Rama Mbaye ñu ngi leen di ziar bu baax a baax di leen ziar ñoom ñëpp rek mboolem seen ñàkkul ni dinañ si dikkaat gannaaw bi ñu àndee ko waa Régis kon teewlu Serigne Fallou Serigne Chouaïbou si kaddu seede yi nga xam ne def na ko si maam Cheikh Ibrahima Fall fàttaliku sunu waajur woowu fi jóge doonoon sunu wëllëre lool nee doonoon sunu wëllëre lool nee mu daan ànd ak moom di dem ci Serigne Saliou fàttaliku ci rek nee mu fàttaliku ci rek benn bis booba yaakaar naa nee na booba defe na soxna si mu ngi toog ak soxna mbenn bi ñuy waxtaan ak sëriñ bi nee na bi ñuy waxtaan ak sëriñ bi mu fàttali ab xisa nee mu fàttali ab xisa sëriñ bi mag moo xam ne mag moo xam ne sëriñ bi daf ko yónni woon ci Cheikh Ibra sëriñ bi daf ko yónni woon ci Cheikh Ibra nekkoon na ma jox lim sàngam nekkoon na ma jox lim sàngam ne ba ndaw la ñëwee. ci jamonoy koor. ci jamonoy koor. nee na gis na téye téye na ko fa ñeenti fan. nee na gis na ko te téye na ko fa ñeenti fan. nee na sëñ Mor Talla Fall la ko boole. nee na sëñ Mor Talla Fall ko boole lool. ndax lam ko doon laaj bari na lool. ndax lam ko doon laaj bari na lool. nee na gis na ne dajji na ay néegi waa këram sax. nee na gis na ne daj na ay néegi waa këram sax. jaay na ko. nee bu añ jotee bu ndékki jotee. nee na bu añ bu ndékki jotee. nee ci yónnee jox ko ndékki. nee na ci yónnee jox ko ndékki. ndaw la ne damaa woor. nee ndaw la ne damaa woor. bu añ jotee dana ko def. nee bi añ jotee dana ko def bu añ jotee. ba mu am ñeenti fan. ba mu am ñeenti fan. Cheikh Ibra dajale lañ ko doon laaj lépp. na Cheikh Ibra dajale lañ ko doon laaj lépp. jox ko mu indi ci sëriñ bi. jox ko mu indi ci sëriñ bi. damay fàttali rek lu ma doon nettali sëñ Saliou. nee day fàttali rek lu mu doon nettali sëñ wax. bi mu ñëwee sëriñ bi ne ko. nee bi mu ñëwee sëriñ bi ne ko. naka nga def ak sa baay Ibra. naka nga def ak sa baay Ibra. mu nettali ko lépp. nee mu nettali ko lépp. ba agsi ci lii. ba agsi ci lii. sëriñ mu ne ko laggal nga dellu. mais sëriñ bi ne ko laggal nga dellu. am fa ñeenti fan ya fa amoon. am fa ñeenti fan ya nga fa amoon. ne ko kenn du delloo aw ñam. ko xanaa xamoo ne kooku kenn du delloo aw ñam. soxna saa ngi toog ak soxna benn. nee na soxna si mi ngi toog ak soxna benn ci kanamu sëñ Saliou. keroog sëñ Saliou dafa am xaal. nee na keroog sëñ dafa am xaal. daal man de sant naa yàlla bu baax. daan ne ko man de sant naa yàlla bu baax. bi fi sëriñ bi jógee. bi fi sëriñ bi jógee. ci atum 27. ci atum 27. damaa nekk ci daara ji ba yàgg. mais daa nekk ci daara ji ba yàgg. mu ne ma loolu gone yi def dem te tàggoo. nee na loolu gone yi def mu ne ko loolu gone yi def dem te tàggoo. loolu laa def keroog. nee na loolu laa def keroog. waaye dama ne. du ma fi du ma fi jógee te gisuma Cheikh Ibra waaye ne dama ne du ma fi jógee te gisuma Cheikh Ibra ah, ne waaye ba ma ñëwee de ne waaye ba mu ñëwee de nee na man de ba mu ma joxee jëfandikoo naa ko nee na man de keroog ba mu ma joxee jëfandikoo naa ko sant naa yàlla bu baax nee na ko sant naa yàlla bu baax te dégg ma woon xesa bi nga wax te déggu nee na dégg ko dégg mu ne ko te dégg ma woon xesa bi nga wax dégg naa it mu ne nee dégg na it Serigne Saliou ne نانا والله أنا نانكو أنا نتي اي ميبتم أنا نتي اي ميبتم ام أنا جي جيجن دوم أنا ام دوم جي أنا دوم تودي شيخ أنا ام دوم جي أنا دوم تودي شيخ أنا كون لي سوخنا أنا دي واخ ني أنا لي سوخنا سي أنا واخ سما تروندو أنا موم لا تودي أنا دوم موم تروندو أنا شيخ خالو تودي أنا سيغ سالي لا أنا ووتال ني سيغ أنا لا كو ووتال ci gàttal rek. ci gàttal rek Serigne Touba mooy Cheikh Ibra. Serigne Touba mooy Cheikh Ibra. soxna si nag sama xol sedd na bu baax. nee na xolam sedd na bu baax soxna si. wolof dafa wax ne. mais wolof dafa wax ne. kuñ ne kii xaw ma nu ma koy def. kuñ ne kii xaw ma nu ma koy def. nam la defa tax. nam la defa tax. toogaay bii de xaw ma kañ laa ko gëj a def. nee na toogaay bii de xaw ma kañ la ko gëj a def. sama yaram mayu ma ko nee na yaramam mayu ko ko yitte yi mayu ma ko yitte yi mayu ko waaye nag ni ma dafa tax ne waaye nag ni nga ko dafa tax ak soxna sële ak eh, soxna sële mbooleem mboolem njaboot soxna maam Faati ak waa mboolem njaboot gi maa ngi leen di sant bu baax nee na moo ngi leen di sant bu baax jàppale nañ ma ci li ma jàpp ne mooy liggéeyal sëñ Touba. nee na jàppale ngeen ko ci li mu jàpp ne mooy liggéeyal sëñ Touba tam ne ci. te amu leen fenn fu ngeen yem. te amu fenn fu ngeen ci yem. kon nag ma ngi ñaan ci yàlla mais kon nag mi ngi ñaan ci yàlla ab jullit day ñaan yàlla mais ab jullit day ñaan yàlla waaye sañ naa ñaan nag ci daraje yi kam yaakaar waaye nee sañ naa ñaan nag ci daraje yi kam yaakaar maa ngi ñaan yàlla ci barke sëriñ Touba nee na mi ngi ñaan yàlla ci barke sëriñ Touba yalla defar leen defar gu àndatu ko gu yàqu yàlla defar leen defar gu àndatu ko gu yàqu te képp ku fi nekk te képp ku fi nekk képp ku teew ci bis bi ku teew ci bis bi sunu borom jéggal ko ay bàkkaaram sunu borom jéggal ko ay bàkkaaram sëriñ bi te taqale koog sëriñ bi ci saahir ak ci baatin ci ak ci baatin sama xol sedd na bu baax nee na xolom sedd na bu baax sama xol boobu sedd kat nee na boobu sedd kat mooy xolub sëñ Abdul Ahad nee na mooy xolub sëñ Abdul Ahad mooy bu sëñ Soaybu mooy bu sëriñ Soaybu mooy sëñ Saliou mooy bu sëriñ Saliou sama xol seddee rek ñoom seen xol sedd nee na bu xolom seddee moom rek ñoom seen xol sedd na jërë ngeen jëf. jërë ngeen jëf. sant naa bu baax. nee na sant na bu baax. dama mënut a àggale génne li ma bëgg a wax lépp. nee na daa mënut génne li mu bëgg a wax lépp. soxna Mbène maa ngi koy sant bu baax. nee na soxna Mbène sëriñ bi nee mu ngi lay sant bu baax. moom ci man la féete. nee na yow ci moom nga féete. <laughs> waaye damay ci moom lu lu lu ma gis baayam def ko. nee na waaye day seere lu mu gis sa wajur bu baax def ko. yàgg naa du sori ay 64 65. nee na yàgg na du sori ay 64 65. xam naa soxna benn sax xaw ma ñëwagum naam nee na booba xam naa yàgg na ci soxna si lool. sëñ Abdou Lahad dafaa indi camion pepp. nee na sëñ Abdou dafaa indi camion pepp. kër gi kenn néew. nee na kër gi kenn néew. ku ñuy wax Ahmadou Diong. nee na ku ñuy wax Ahmadou Diong. ne xanaa dañuy dem ca marché Ocass wuti fa ay làppatoo. nee na xanaa dañuy dem ca mars marché Ocass wuti fa ay làpptoo fay leen ñu wàcce fay leen ñu wàcce pepp mi fi ñuy wax rek sëñ Sam egsi nee na fi ñuy wax rek sëñ Sam egsi mu ngi yor oto bu ñuy wax deux cent trois nee mu ngi yor oto bu ñuy wax deux cent trois daal di ne Ahmadou lu ngeen lii lan la lu ngeen di def nii ne daal di ne Ahmadou lii lan la lu ngeen di def nii mu ne ko dañoo bëgg a dem ca marché bi wuti ku nu jàppale mu wàcce pepp mi nee na mu ne ko dañoo bëgg a dem ca marché ba wuti ñu ñu jàppale ñu wàcce pepp mi mu ne futeet daraaje sànni fële nee na mu ne futeet daraaje sànni fële boobu am na kattan lool nee na boobu am na kattan lool saaku bu mu ne sëq nee na bu mu ne sëq day mel ne fukki kilo la yor nee day mel na fukki kilo la yor roñ ko lépp dugal ci biir nee na roñ ko lépp dugal ci biir loolu loola gis naa seen son yi bu yéem ko yéem goo xam ne nee na gis na seen son yi bu yéem ko xam ne te mbokk la te mbokk la noo bokk ma aram ñoo bokk ma aram bokk lépp liis di am ci sëñ bi rek am na ko ne liis di am ci sëñ bi rek am na ko waaye amewu ko ci bokk gi nag sant nee na waaye amewu ko ci sant yi ci bokk gi ci taalibi gi rek ci taalibi la ko amee kon ngi koy sant bu baax nee na mi ngi koy sant bu baax moom soxna Mbène mii li ma koy gën a sant di doomi Sëriñ la li ma ko gën a sant nag. mais li ma ko gën a sant nag. taxawaayam fii ci soxna si. nee na taxawaayam fii ci soxna si. ñu doon benn. ñu doon benn. àndandoo. àndandoo. dundal kër soxna ummi. dundal kër soxna ummi. taxawal ko. taxawal ko. taxawu taalibe yëpp taxawu taalibe yëpp. sama xol sedd na ci. nee na xolom sedd na bu baax ci yow. ndax man kër bi rek moom laa ci gën a miin. ndax nee moom kër Cheikh rek yow moom la ci gën a miin. ak sëñ Modou Aminta. ak sëñ Modou Aminta. sëñ Mourou Aminta moom dañ ma cee jox ndigal. nee na sëñ Mourou Aminta moom dañ ko cee jox ndigal. ñuy liggéey kër sëñ Saliou gii itam. mais bi ñuy liggéey kër sëñ Saliou itam. itam di ko liggéey. nee te sëñ Mourou ko liggéey. damaa Touba. nee daa jóge Touba. di dox itte ju ma far. di dox yitte ju ko far. ju jafe. ju jafe. mu ñëw ba tolloo kër gi. nee na mu ñëw ba tolloo kër gi. maa ngi def listixaar. nee na maa ngi def listixaar. diggante sëriñ bi ak Cheikh Ibra. diggante sëriñ bi ak Cheikh Ibra. lii may wuti. lii may wuti. bu fekkee seen diggante benn la. su fekkee seen diggante benn la. boo ma demee na itti ja daal di jàppandi. su ma demee na itti ja daal di jàppandi. ma jox nit. ne ko demal ba fee nga joxe ko. nee na mu jox nit na ko demal ba fee nga joxe ko ko. voilà sëñ Cheikh Fall Xadigee la ko nee na defe na ne sëñ Cheikh Fall Xadigee la ko jox. ma rocc ko ndànk dem. nee na mu rocc ko ndànk dem. ba ma àggee Ndakaaru. nee na ba mu àggee Ndakaaru. demuma ci ministre. nee na demul ci ministre. jéemuma gis président. nee na jéemut a gis président. dañ maa woo la nga doon it lijjanti lijjanti. nee dañ ko woo ne ko la nga doon lijjanti lijjanti ko. te mooy daaree alxuraan. te mooy daaree alxuraan jii nee mu def. ba ma dikkaatee. nee na ba mu dikkaatee. teg ci ay at. nee mu teg ci ay at. muy waxtaan ak sëñ Saliou benn guddi. nee na muy waxtaan ak sëñ Saliou benn guddi. nettalee ko nii wala. nee na nettalee ko comme nii. mu ne ma seen diggante day lenn. nee mu ne seen diggante day lenn. ndaw itte ju gaaw a faju. ndax ndaw itte ju gaaw a <laughs> dégg nga loolu laa doon wax. nee loolu ko bu baax a baax moom sëriñ euh, Serigne Fallou Mbacke moom Serigne Chouaïbou. sëñ Mamour ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak mm. Mm. yooyu di la jaajëfal si liggéey bu rafet bii nga xamante ni yaa ko jëli ji woon foofu la ci njaareem. Mm-hmm. Euh, kër soxna maam ummi Fall. Mm-hmm. ci bis bi nga xamante ni moom lañ ko doon defal. Mm-hmm. lépp jëm ci ñaanal ko. dégg nga li mu wax euh, moom ni ko moom la ko sëriñ Serigne Salihou wax. yitte ju far moom suñu maam Cheikh Ibrahima Sall Fall moo ci gën a gaaw hmm. te moom yaakaar naa ni li mel hmm. dund na ko bu baax li si jublu nag sëñ Mamour hmm. mooy moom Serigne Fallu mi da turandoo sëñ Fallu di doomi Serigne Chouaïbou waaye dinañ leen indil incha allah ku Serigne Fallu yar di sëñ Aziz Fall moom sëñ Modou Moussa Fall moom maam Cheikh Ibrahima Fall bu ñu noppee dinañu indi kenn si njabootu Cheikh du Fadel di Serigne Abdou Karim Mbacké borom Makarimal Akhlaq lépp rek barkeelu ko si wàccaayu bésu Cheikh Mouhamadou Fadel bii di mhm. bisub Kazu Rajab mhm. sëñ Mamour lépp rek gis nii ni ñu ko waxee woon sànq sëriñ Fallou ak Cheikh Ibra dañ mhm. di kenn te dégg nga sëñ Fall lu mu wax gis nii maam Cheikh Ibrahima Fall kenn xamul lu mu doon te li si gën a yéeme mooy lu mu déggee si Serigne Chouaïbou muy waajuram ñëw di ko gaaral Serigne Saliou ak lu mu dundal boppam ak njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall ñëw di ko gaaral Serigne Saliou ak Serigne Saliou lu mu ko ci tontu tubarkalla sëñ Aline Badara xanaa di dolee ziar bu baax rek sëñ Fallou. mu sëñ Soyebu di ñaan mu yàgg fi lool nag. Eh, di ko ñaanal bu baax wér ak gudd fan ci barke sëñ Touba. di ziar bu baax nag njaboot gi yëpp nag sëñ Saliou Mbacke xasida moom sun wëllëre sun xarit ku bëgg maam Cheikh Ibrahima Fall xam nga waxoon nanu ko <laughs> tubarkalla di ko ziar bu baax moom itam waaye di ñaanal bu baax nag bàjjan Rama Mbaye mhm. Euh, moom sëñ euh, yaaram mbay moom maa ummi Fall moom mi nga xam ne keroog ndeysaan ci gis na ci kanamam la sëriñ bi doon yëkkatee kàddu yi mm-hmm. gis nga sëñ Fallum sëñ Murtala ma nga fa toog keroog kooku sëñ Mouroussa Fall la jur way juróom wu jigéen ñoom ñëpp alal yi Cheikh Ibra Fall lañ mm-hmm. leer ziar bu baax mboolem njaboot gi yëpp nag mm-hmm. soxna Mbène Mbacke soxna Mame Bousso nag mi nga xam ne sëñ Falloum sëñ Son yu moo ko moo ko yoro mm-hmm. da doomi sëñ Abdou Lahat ak soxna Rana Mbaye ñu ngi koy beral nuyoo ak ziar waaye soxna yaay moom it fa fekkoon tubaarkal macha allah bu bokk ci liggéey waaye lii lépp rek comme ni nga ko waxee di wane na rek euh, euh, kii Serigne Fallou lañ ko dippe mm-hmm. mu jël kàddu yi seere ko ci maam Cheikh Ibrahima Fall ndax waxoon nañ ne ku sëñ fallu yar ak kuñ tudde sëñ Fallou ak leerug Sëñ Fallu kon loolu lañ digoon mbokki taalibe yi te incha allah noonu lañ ko fas yéene bu ci yàlla andee euh, euh, di jaajëfal baax ak ziar nag sëñ Ahmadou Bari moom sëñ Fallu euh, moom moom itam muy koo xam ne Cheikh Ibra Fall rek la bëgg mhm. loolu xam nañ ko ndax ñu ngi bàyyi xel keroog bi nga xam ne ndaje moomu sëti sëñ Tuubaa yi woote woon bi ñuy waajal màggal ca euh, kër sëñ kër Cheikh Rafal ga ca Janatu Mahwa mhm. mu jiite woon délégation ba ak sëñ sëñ Abbaan ñoom ñëpp mhm. eh, di ñaan bu baax suñu borom yàggal ko fi bu baax a baax moom sëñ Ahmadou Bari eh, di ko xam ne eh, diggante sëñ Fallu maam Cheikh Rafal Fall moom fii may waxee yow nii sax defe suma jumoon mi ngi koy mi ngi ñuy bàyyi xel di ñaan bu baax njabootu sëñ Fallu gépp waaye lii rek day wane ne kon mhm. Cheikh Ibrahima mooy sëñ Fallu te leel defe naa euh, li ma la wax rek du jar ñu ci commentaire si Alioune Badara tey daal amuñu lu ñu wax ndax comme que yàlla dogal na leeri sëñ Tuubaa yi nii di yëkkati seen kàddu di jëmale ci Cheikh Ibra Fall kii sëñ Fallu ñu dippe ko ko mm-hmm. kii sëñ Fallu yar ko mm-hmm. kii di leeruk sëñ Fallu defe naa ne sëñ Alioune wax moom tey <laughs> rëyul làmmiñ la tey moom ma wax ci dara <laughs> moom defe naa ne bëgg wax la wala wala wala rëyu làmbañ waaye loolu sañatuma ci commentaire dala daal dañuy daal di jàll rek ci yeneen kilifa yi ci des wane na daal tey daal sëñ Fallou mooy Cheikh Ibra Fall eh, te defe naa ci kanam tuuti danaa nettali loo xam ne mhm. góor gi mbéykan xam ni moo ko nettali woon te fekke woon na ko ci diggante sëñ Fallou ak maam Cheikh Ibrahima kon dinañ si ñëw léegi sëñ Mamou xam nga ni soxna soxna Mamou Ngouye Fall suñ koy waxee sama xel day dem si mm. eh, soxna Fatmata Fall di di di waajur sëñ Cheikh Ngounda Fall mm-hmm, mm-hmm. nga xamante ne sama njëkk sama njëkk bi toog ak ziar soxna maam Oumy Fall mhm. moo jàpp sama loxo yóbbu ma bi si moom mhm. kon nu ngi koy ziar bu baax a baax Fall di ko ñaanal mu loolu te ànd ak mhm. ak mbooleem njaboot gi foofu la ca njaar yëpp fa ñu nekk fàttewuñu sax ne jeefaal mhm. euh, mi nga xamante ni liggéeyal maamam rek mhm. moom moo ko tax a jóg moom sëñ Moussa Fati Kane mhm. sa Thiès ñu ngi koy ziar bu baax a baax soxna soxna jee ak waa groupe Kennel Serigne Touba ñoom jamono ji ñu ngi topp jotaay bi ñu ngi topp groupe Kennel Serigne Touba gépp leen ñu ngi leen di ziar bu baax euh, si seenu ko bëgg ak seenu ko dogu ci maam Cheikh Ibrahima Fall barkeloo café gi mu ngopp ñoom kañ ñoom soxna Diagne ñoom si si si si si si liggéey bi leen bokk kon di leen ziar bu baax a baax euh, sëñ Mamour ni ko waxee kàddug Serigne Fallou Serigne Chouaïbou bu di ko ziar bu baax a baax te di ko ñaanalaat. Mm. li fekk ñu ñëwaat. Mm. incha allah kon dañuy ànd ak euh, Serigne Aziz Fall moom Serigne Modou Moussa Fall moom maam Cheikh Ibrahima Fall. Mm-hmm. ni nga ko waxee woon Cheikh euh, Serigne Modou Moussa Fall jox ko Cheikh Chérif Assane. Mm-hmm. Cheikh Chérif Assane tegaat ko si loxoy Serigne Fallou mu yar ko. Mm-hmm. Euh, lu mu dund si digganteem ak Serigne Fallou. ak lu mu ñu mën a indil. ci diggante Serigne fallu ak kon maam Cheikh Ibrahima Fall wala laataa loolu. nañu ànd ak sëñ Abdou Karim Mbacke mhm, borom mhm, Makarim al mhm, Akhlaq xam nga ne sëñ Mamour jaaroon na fi mbokk yi du ñu doyal ci moom ndax moom yaakaar naa ni jëmmam rek maanaam dafay dafay soññee ak wane dogoom ak pas-pasam si maam Cheikh Ibrahima Fall ñëpp xam ko diggante bi kon Serigne Abdou Karim la ñuy àndal bu ko defee nag doogo ñëwaat si Serigne Aziz Fall moom sëñ Modou Sa Fall kon ñu ànd ak waa Régie daje ñëpp te leen saare bu baax di leen nuyu yéen waa Lamp Fall leen xamal ne bisu mel nii nga xam ne amul benn xew-xew bu xew lu dul nu toog fii ci sunu buntu kër rek ak ak talbe nuy nuy nuy nuy béggee Cheikh Amadou Bamba rek ngeen ñëw bëgg noo jël bëgg enregistré sunuy waxtaan yéen ko jukkaan mboolem kàddu goo xam ne ci sama lamin di di dem bisub xew-xew lay doon lu xew ci Touba ci yi rek màggal gu màgg yi wala màggalu Kazu Rajab rek wala yu mel noonu ma sànni ci ay kàddu yu tuuti rek waaye ñëw ak sa rajo ak sa appareil nga sànni ay kàddu rek ma daal di jël sànni kooku moom yéen a ko jëkk am mustaam te daanaka jaaji mi doon waxtaan léegi xam na ci dara ñi ma delleel yëpp xam nañ ci dara daanaka ci ñu ñëw di ko soxla daanaka ci lañ dëkk fan yu néew yu ma am dana am ñu ñu ñu ñu mel ni yéen yor li ngeen yor ñëw fi soxla loolu te duma ko def. baat ba tax ma ma ma ma ma ko def itam mooy bi may wax rek kooku moom sama wax la boo xam ne bii du ma ci jóg mukk fii sama bakkan a fi muy dama nekk ci dëkkub kilifteef nga xam ne dañ ma fee yilif te yoon bi du yoonu kilifteef damay wax saa bu nekk ne Touba ki fi a wax mooy sëñ Sidi Moxtaar rek wala ku mu wax loo ku mel ni sëñ Bass Abdou Khadre mi nga xam ne moo baatam ak jëwriñam yi ci des nag yi nga xam ne sëñ bi daf leen a jox ay kër yu mag ñu jiite ko te ñooñu it seen wax mooy bis bi ñuy am ba kër ga am bu ñëwee ñi leen yaakaar ngir jëmmi seen duwaa ñëpp daje fa màggal bis ba bu njëkkee ba yëf yi di jeex gannaaw yow lañ yaakaar te yaa leen fa dajale nga sànni leen ay kàddu yoo xam ne kàddu yi kër ga lay doon lépp jëm ci Sëñ Tuubaa nag waaye kër ga lay doon nga digal leen ko tere tere leen ci sa biir kër ñu dem yóbbaale loolu loolu loolu moom danay am waaye bu dee baatub dëkk bi nag nga xam ne baatub kër baatub dëkk bépp kooku moom sëñ Sidi Muxtaar rek moo ko moom wala kum wax loo loolu moo waral sama wax du bari man nag maa ci gën a maa ci maa ci war a gën a gën a néew ay wax man ndax sëñ Sidi Muxtaar bu yilifee dëkk bépp kër gi ma bokk da ko yilifale kër gi ma bokk nag bu ko yilifalee ba kam kam yilif yilifale ma kooku koy man lu dul dégloog foto su waruma koy def rek euh, waaye nag boo gisee lii tey ma nangu ko muy maam Cheikh Ibrahima rek waaw Cheikh Ibra ku ma ci woo ma bañ ku ma ci woo te la kon nga xam ne defuma li ma war a def euh, li ngeen jëkk am nag li tax ngeen jëkk ko am mooy li ngeen ma woo yéen ma ci jëkk woo moo tax nun nag yàlla def ma dimbale ba ki nga xam ne ci génn moom muy maam Cheikh Saamoon Bamba ak Laaji Fallu dañuy cee far ubbil bunt dañu ko ubbil buntu far bunt bi mooy sëñ Abo Mbakke sëñ Abo mi nga xam ne ah maam Cheikh ay maamam rek far mu boppu sunu kër kookoy moom bunt la boo xam ne nun leeral na sunu mbir leeral na sunu mbir maam Cheikh nag man mënuma cee sori si waxtaan ndax maam Cheikh dafa rëy dafa rëy rëy goo xam ne neexut ku mel ni man di di di ci waxtaan waaye xam naa ne daal képp koo dégg ñuy wax ne murid saadix la ñu tudde ko murid saadix xam nga am na ci yoon yoon yoon ñoo xam ne da nga wax yow de moom li mu doy war moom ne murid saadix la koo dégg ñuy wax ne murid saadix la bo que fekk wax googu ñu wax ni murid que la di deug da nga fekk muy dox doxin mom Cheikh Ibra Fall kooku moo ci si kës képp koo xam ne dañ ne murid saadax la nga dem te fekkoo muy dox doxiinu maam Cheikh Ibrahima Fall xamal ne dañ ko ko waxal waaye saadega du amut waaw saadega amut saadeg moom murid saadeg moom bu ñu la ko waxalee te mu wér kañ ko kañ ko wax ci moom boo demee boo àggee la ngay jëkk a gis ci moom mooy doxinu maam Cheikh rek melawa wax jaag doxin waag lépp maam Cheikh lay doon boo ko fekku rek tur fa ne waaye waaye waaye waaye lañ eh, eh, lañ wax amul. Baye Fall yi am na ñu bari sax defe nañu jànguñu te man nekk naa ci daara ñu andil ma fa ñu andi fa kaamilu sëñ Cheikh Fall Baye Góor. waaw nga xam ne booba eh, li taxoon mu ñëw fa moom fa nekkoon ak ñetti doomi sëñ Modou Moussa Fall ak doomi sëñ Cheikh Fall bay góor taawam sëñ Moussa Fall sëñ Moussa Fall moom laa fa nekkaloon ak sëñ Bàcc Fall ak sëñ Yidaali Fall ak sëñ Fallu Fall Fatikan ñu andi fa kamil boo xam ne dañ leen ko andil ngir ñu di ko jànge di ko roy kamil ba xam nga ndongo daaral lu ndaw ay téeréem day gaaw a sonn màggat tasaaro mujj tas ci daara ji ba doo xam waaye kamil ba amoon naa ci ñaari kayit man ñaari kii ndax tas gi mu tasoon ci daara ji rek eh, mu nga xam ne boo ko bàyyi noonu it daanaka du mujj fenn ñu di ko wëndeel ba ma am ci ñaari kayit man ma ñaan ko sëñ Moustapha mu jël te eh, waxuma kamil rek de ndax mbind kamil moom yomb na ñu ko ñu ko ñu ko bind bari nañ surtout tuba gi tuba moom ngay romb dajeeg xale bu ndaw boo xam ne bii nii la toll mën na la mën na la mën ñu ne la bind na kaamil ba fii bisu fii bis mu ne di andi fi doomam ju ndaw yoo xam fukki at ak nangam rek naan ma dafay jàng ba bind kaamil dafa bëgg a dem jàngi xam-xam am na ñooñu sax dañ ma koy indil fii ay kaamil xale yu ndaw indi lañ ma fii ñoom ñu fekk nañ ma fekk nañ ba tey ñu xale indil ma fii ay kaamil kon bind kaamil. yom yom yo yombut waaye am na mbindi ni kaamil la yu gën a jafe boo gisee ma tudd kaamilu sëñ Cheikh Fall Baye Góor boobu li ci am a tax ndax sëñ Modou Moustapha Mbacké mu nga xam ne yoon weeg ñu dul yoon bi ñëpp ko xam moom wutu si Amadou Bamba mu ci jógee wi doxal ko ci waxtu boo xam ñu bari sax c'est jàppoon ne si Amadou Bamba fi jógee ak waxtu woowu ni mel tubaab yi yeeg seen i ak si Amadou de seen c'est tubaab yi nañ ni bu suñ rek yoon wi euh, sëñ Modou Moustapha Mbacké téye ko di ko doxal ba jébal ko suñu lu mu di ko doxal ba jox muy dox nii ba fii ci ñu gis ni te day di kiimaane bu faaw léegi sëñ Modou Moustapha moomu bind mënoon mënoon na ko manin woo xam ne képp koo xam ne ki da ngay téye xalima ci ñi xam bind laa wax nag ñi nga xam ne dañ leen doon tudd ñu ndax fee bind ñu mel ni sëñ Demba Kébé ñu mel ni sëñ Moussa mu gi ñoom ñu mel ni sëñ Moussa sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ ñoo ñëpp bind daan nañ ci def loo xam ne képp koo xam ne ki xam nga luy bind boo gisee seen këyit bu ñu bind rek sa sa àdduna day dafay dafay jaxle ci xale mi lañ koy koy doxale te ñoom ñëpp ak si woon ñu ngi woon sëñ Mourou Moustapha Mbacké ci ci ci ci DDW te mbindum sëñ Cheikh Fall Baye Góor moom ma lay wax dem naa ba këyit yooyu boobu may maa ngi toll ci mm, jàng bind xamaguma dëgg-dëgg araf euh, rafetaayam yu mel waaye këyit yooyu bi ma ko téye sëñ Mourou Moustapha Mbacké itam. ma jekki bu dem Daaru Salaam nekk fa sëñ Moustapha Mbacke mi mu soxna Xadi Fatma moom it euh, soxna Xadi Fatma am naa ci téere sëñ Moudou Ndiaye sëñ fa ñu ci gaynde Fatma ci kër ga daal ci la ko jële ñu yón ñu andil ko sëñ Moustapha ca foofu ci Daaru muy jimbilang bi ma demee ba gis bindum sëñ Moudou Moussa mi nga xam ne yoon مجي لاخون بيل ولا ادن بيت شيخ دان استغفر الله ما ادري موم دو في يادو تي في ما يام دال موي خمنا أنا يوني دال موي تي كوكو تي ميلون ني موم تي خليم امول بما كو مين لي آه، بندوم سيني شرافل باي غور بن لي بن لي خليم بي بن لي امول بن اف بو بو ووتو نوي كوي بيندي بيند مو خنا مي دا فاي يارو nga xam ne ñoom sëñ boko Moussa boo ko boo ko mos gis day day sew boko ko séenee nii waaye boo ko tiimee day rëy ndax li tax boo ko tiimee day rëy mooy benn araf du dag lépp sëñ Modou Moussa mbindam lu mu jegee jegee jegee jegee mën ngaa jël lañ seen dara du ci fenn araf du du mel Euh, euh, sëñ Cheikh Fall góor te bi ma ko gëstoo ba laaj laajte ko bu baax a baax a baax dañ ma ne mbind mi ni nga gis mu yaroog ni mu teeye nii ci këyit bi boo ko dee xool gaawaay baa ko rawoon waaw ndax nee na sëñ Cheikh Fall góor bu bu bu ma di bind kaamil ñaari dal lay dal day dal Bakara dal Marème ndax bu bindee xët wi daanaka buy buy àgg ca ca wu mujj wa day fekk daanaka bindu wa ci kaw du mu ngay tooy te day yàkkamti mu jël amoon na xale boo xam ne loolu rek la daan liggéey xët bu rek jox ko mu dem taxaw ca mu jël mareem ci ci ci suuf jël ci teeri suuf bi bu bindee boobu bala bala bala jeex fekk këyit wee wow mu jël albati xam nga aw këyit bu tooyee ci doo ko mën a albati mu daal di jël daal di bind yóbbu xëy eh, ngóor si yóbbu bi ci noonu la moo tax kaamilam daanaka bu ko daan bind sax ay weer ak ay fan rek lay doon. jërëjëf euh, kon euh, sëriñ Abdou Karim Mbacke borom makaarimal axlaaq mhm. sëñ Mamour ndeysaan euh, sëñ sëñ Abdou Karim maanaam si Pastef beeg bëgg maam Cheikh Ibrahima Fall gi mhm. di waajal màggalu ko waajuram gu tedd gi di sëriñam di léppam di Cheikh Mouhamadou Fadel mbakke mu koy defee ca Touba Ndindi di ko ñaan mbokk yëpp fekk ko ko ndax moom da di Serigne Abdou Karim ñëpp wax dëgg yàlla moom addunaa ko addunaa ko safo mhm. di si ziar baax nag Baye Sowru Fall ñu nekk kër nga sëñ ah, Mamour ah sunu sunu sunu ah. lépp mhm. moom ak sëñ Xaadim Ndaw mhm. ca ci kër ga ak soxna Ndey Ndaw moom sëñ Abdou Karim ñoom soxna Mintu Thiam duñ ko fàtte Baye Touba Sène soxna maam Awa Sow soxna maam Awa lu am solo ndax kàddoom yi dafa am solo lool wax dëgg yàlla di ziar nag bu baax a baax sëriñ sëriñ Galas Mbacke moom sëñ Abdou Karim moom sëñ Abdou Karim ak euh, sëñ làmp Galas mhm. ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziar bu baax a mhm. baax si mbir mu am solo mi waaye di si jaar bu baax a baax sëñ Arouna Coumba Ndoffène Diouf mhm. moom keroog ndeysaan bu bu déggee mbind bi ni ko mhm. eh, sëñ Abdou Karim waxee am na yeneen ñum ñu si dollil <laughs> eh, ndax moom it xam nga dadi lépp sëriñ Cheikh Fall Khady Gueye di borom Pastef lool moom docteur Arouna Coumba Ndoffène Diouf waaw yàggee jëflanteeg yoon bi di ko ziar bu baax a baax mhm. sëñ Mamour waaye nga may ma samay xaritu bopp di eh, Makodou Ndiaye Pisco ñu ngi koy ziar bu baax a baax moom it borom mm-hmm. pas-pas la. Mm-hmm. moom ak euh, sëñ Maxtaar Diop. Mm-hmm. ñu ngi leen ziar bu baax a baax di samay xarit sëñ Maxtaar jóob Malxis. ñu ngi koy <laughs> waxee waaye it ñu ngi koy ziar bu baax a baax nag. sunu sunu sunu wóoral la sunu xarit la bu baax a baax sëñ Mamour. dinañ ànd léegi ak Serigne Aziz Fall. mi nga xamante ni Serigne Fall moo ko yar. waaw tubarkal sëñ Aziz dem sëñ Modou Sa Fall la euh, ndeysaan mi ngi seere rek. Euh, digganteem ak sëñ Abdou Karim ak digganteem ak sëñ Fallou moom mhm. sëñ son yow xamante gum xamante ak ñoom mhm. ak pas-pas bi mu xam ci ñoom euh, ndeysaan léegi rek ñu ngi yëglu di wax naan daanaka tàggoo naag sagoom sax ba mu déggee kàddu sëñ Fallou sëñ Fallou <laughs> waaye loolu rek day wane ne euh, Cheikh Ibrahima Fall la kenn xamul lu mu doon ndax euh, fi ne wax ci moom moo jot yàgg naa jot nag waaye fi ne nii mhm. xam nga sëti sëñ Tuubaa yi rek boo déggee la ñu wax xam ne ñu bëgg Cheikh Rafal la ngi nii mhm. te it nag lu ni ñu koy waxee nii noonu lañ koy dund ci seen xol ndax koo ci jëflanteel rek nga jam dem ci ñu moom wala nga nemmi ko ko rek xam ne Cheikh Rafal lay dund koo ci toog ci kanamam rek nga da nga xam ne kii am na cër ci sëñ Tuubaa ndax da koy fekk muy dund ak taalibe tax ku ne xam na ne sëñ Alioune Badara yoon wi ak taalibe rek a fi nekk képp nag waaw Cheikh Ibrahima nee na lu dul ak taalibe des koy rékki nee na lu dul taalibe nit bu faatoo fi la koy bàyyi mm-hmm. nee na ak taalibe képp la boroom du yóbbaale te loolu sañ Mor Talla Fall la ko waxoon mm-hmm. bàyyi Modou Seye ñu ko nettali keroog bi nga xam ne sañ Mor Talla eh, sëñ Tuubaa wax na ko ne ko ku baax ki ku tedd ki Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam moo fi ñëw deme gane si jot si moon ci yéen loolu histoire la mm-hmm. nee na nee na ku baax ki dafa ñëw réer ci njëriñ bañ mel na doom ju bëgg a nàmp te gisul ndeyam ne <laughs> bis nag may jàng ma maraaxib nee na sëñ Tuubaa yëngu ci genn kees na ma kooku du Momar. Momar nee na Momar la ma daan wooye. <laughs> waaw nee na. jeex euh, koy jeex borom premier mai. premier moom macha allah. fi ne fi ne fi ne nii moom Ndakaaru gépp a ngi waaj a. <laughs> Euh, sëñ Cheikh Khadim di ziar moom mi ngi ñuy bàyyi xel fii mu ne. sëñ Talla sama xarit sama sama sëriñ. Mhm. sëñ Mor Tall nee na may jàng maraaxib nee na sëñ Tuubaa yëngu ci genn kees na ma kooku du Momar nee na mu daal di daal di ñëw na ma xanaa fan yi ngeen ma gisut xaw ngeen a jaaxle mais nu na ko waaw mu ne baax ki di Rasulullaahi sallallaahu moo fi ma gane si moo tax jëstu woon ci yéen daan na dem nag dégg nga tàmbali xasida gi mu koy déglu waaye nee na nga wax loo bëgg mu fasal la ko ci nee bëgg a tontu mu ne ma nekkook taalibe <laughs> ane sëñ Tuubaa ma ne nekkook taalibe nee na ma nekkook taalibe nee na nee na mu dem dikkaat daan daan daan na ma romb na la nee na ma ma ne boobu nag nee na gisuma ko aw ma xëy na mënuma ma ne ma waa romb na da nga koo gisut mm-hmm. nee na mu teg ay fan yoon ma ci sama baay Cheikh Ibra sëñ Mortal nee na boo masaan a jub maam Cheikh ne bu fekkee mu toog ci kaw day wàcc ngir lim bàyyi ko ci sëñ Tuubaa nee na bu ma ñëwee mu jiñ ma ci toog bi na nag du ma nangoo toog mu bokk ak man toog fi soo feeg demaatuma ci ku tedd ki Cheikh Ibra Fall du ci kaw te doomam la kat <laughs> nee na ma di ko nettali ba ne ko ku baax ki gane si woon na Cheikhul Khadim sëñ Tuubaa na ma waxal li nga gën a bëgg mu fasal la ko nee na moo koy bëgg a tontu mu ne ma nekkul taalibe nee na Cheikh Ibrahima mu na ko na ma ah sa wajuroo dala bëgg ndax xam na ne lu dul ak taalibe des koy rekkee waaye ak taalibe borom da ko yóbbaale moo tax ma wax ne ñoom seeti sëñ Tuubaa yi lenn leen lu dul ak taalibe koo mën a doon boo boo wanee wut ak amuñu ci yow soxla mm-hmm. moo tax ñu bëgg maam Cheikh Ibrahima Fall di dund maam Cheikh Ibrahima Fall gis nga sëñ Fall moom sëñ son yi li mu wax day dund Cheikh Ibra te gis nga lu wax ne doom ji mu tudd maam Cheikh Ibrahima Fall te loolu lay dund waaw fekk nañ ba tàyyi ay ay waxtaanam ci jotaay mm-hmm. waaye lii rek lay wax boo gisee ba ci njabootam sax daa feeñ ci ñoom sëñ Saliou moom kenn du la ko wax xam nga ni demee ak moom <laughs> moom dem na ba wax na nanu sax mm. sëñ Touba moom ku riir jëm la gën a <laughs> wax nanu loolu waaw waaw te te macha eh, ko ziar baax di ziar baax sëñ Abdou Karim di ziar doomi Serigne Touba ak sëti sëñ Touba yëpp waaw eh, ndax ñëpp ay dund Cheikh Rafal rawatina na njabootu sëñ Fallu nga xam ne fi ne ñu ngi waajal bu baax a mm-hmm. mooy maamam ñu ngi koy ziar bu baax di boo mboolem sëti maam Moudou Fall ma Fall yëpp waaw di leen ziar bu baax a baax a baax sëti maam Moudou Fall leen tuddee mhm. sëñ Cheikh Mbaye yaaram mhm. mënu ci ñàkk mhm. dañ koy tudd ak ni mu demee ak sëñ Fallou ak ni mu demee sëñ Fallou waaw Mbaye Abdou Niang dañ koy tudd sëñ Abdou Falloum Cheikh Moudou Fall ma dañ koy tudd ñoom yëpp sëti maam Moudou Fall ma Fall di leen ziar bu a baax a baax a baax jariñ Badara jërëjëf sëñ wax si leeral bu am solo boobu waaye dégg nga ñu sànq nag lu jëm si ak loo loo loo jëlee si si bay mbaykan bay mbaykan xandi dinañ si dikk léegi incha allah ci kanam mm-hmm. bu ñaan dekk euh, sëñ Aziz Fall mm-hmm. mm, sëñ Modou Moussa Fall leen mm-hmm. naan lu tax ñu andi ko ndax euh, euh, da di da di da di ku bokk si sëñ Modou Moussa mu jox ko Cheikh Chérif Hassan mu teg ko si loxo sëñ Fallu sëñ Fallu yar ko moo tax tey niñ ko waxee woon sànq indil leen leen ku ñu dippee sëñ Fallu moom sëñ Soyew indil leen ku bokk si Serigne Fallou Serigne Abdou Karim Mbacke borom makaarima axlaaq mm-hmm. nag leen andil ku bokk si maam Cheikh Ibrahima Fall direct mm-hmm. di sëtam di doom Serigne Modou Moussa Fall te mm-hmm. Serigne Fallou yar ko di ziar bu baax nag yaa awagay duñ ko fàttee si bisam bu am solo bi muy waajal jagleel ko soxna su Fall moom maam Cheikh Ibrahima Fall dikk mm-hmm. juróom-ñaari fan si weeru mai mm-hmm. gannaaw kas rajab bi mm-hmm. ziaraale si bu baax nag Baye Khalifa faal suñu Baye ñu ngi bu baax a baax ku ñu taxaw wax dëgg yàlla <laughs> waaw moom moom moom moom mooy mooy mooy président d'honneur ñun Baye Fall yi <laughs> ah, ñu ngi koy ziar bu baax a baax kon sëñ Mamour dañuy ànd ak euh, Baye Khalifa Fall waaw ah, dañuy waaw Baye Khalifa ba tey ni ah, ñuy àndal <laughs> kon euh, sëñ Aziz Fall moom sëñ Modou Moussa Fall moom euh, Mam Cheikh Ibrahima Fall. Mhm. ci kaddu yi nga xamante ni yëkkati na ko Cheikh Mouhamadou Fadal. Mhm. bismillah. bokk taalibe yëpp bokk ngi nuyu di fas yéen it wax li ñu xam ci sëñ Fallou Mbacké nga ñun ñi mënu yar ndax jamono bi Mourou Fall kat sunu waajur sëñ Basiir Mbàkke da ko delloo sëñ Asan jox ko mu yaru mu yaru fa moom sëñ itam ah ñu ak ak i doomam yóbbu mbuur falaa dale jàng bu fa jébbalu sëñ Fàllu loolu nag xaw naa yàgg lool boo xam na ni su ma ko fàttalikoo samay at bari xam naa ni sama fukki at boobu moo ko ameet xam naa ne yaakaar naa ne du ko war a du ko du ko war a ëpp at moom nu jëbee sëñ Fallu mag ñu bari luñ sëñ Asan booleel ñëw maag maag sëñ Asan Faal ak Yaafaa Njaay Sekk ñun lañ indi joxam sëñ Fallu ñuy def man sëñ Fallu laa ko jëkk defee boobu sax dañ na koo sax jébbal naa la sax àdduna ak àllaaxira soo ma digalee ma def soo ma tere ma baax loolu la ñuy wax ci kanam suñ toll suñ toll ñaanal na daal nuy jabal nag keroog fa saas it fanaanuñu Tuubaa dañoo daal dem Alieu am na satale boobu bu nekk ci buntu ko sëñ Fallu ñu di ko wax Modou Fati bu wax Baye Modou Fati Ndiaye moo yoroon satale boobu yi booba teen bi teenub jàjj Fall boobu yi ci kër sëñ Touba gi boobu suñ bàyyi ko bën sëñ Mour Moustapha booba ndox jafe na tuubaa lool loolee mooy keroog boobee am na doogo bu ñuy wax Cheikh Ndiaye ci daayira sëñ Bousso Safoor ci la Cheikh Ndiaye moom ma nekkoon moo doon jëwriñ ji foofu laan roote yi keroog ab bi ñu waar ba yanu ba mu ko duyee ci ca seetane ba daal sëñ Fall leen ko boo demee yóbbu leen gone yi boo nee joxoon na leen Baye Dame Ndiaye ndax ñu boole jàng ak liggéey ñu daan di ànd Cheikh Ndiaye keroog ba mu yanoo bañ waar bi de guy xaajale fa la yenn ko noppalu jëlaat bu waar ba. yenuñu ko ko sax moo ko yëkkati boppam yenu ko ñu daal ñoo dugg allié bi mu taxawee ci bunt bi dana ana bàyyi daam njaay ñu mu ne maa ngi nii mu ne ko sëñ Fallou la jox bana yi daal dem boobu sax guddi na lënd mën a ba nga xamante ni tiire na bàyyi daam njaay jëyeenu foofee ca allié tàmbali nag man li ma fa njëkk njëkk liggéey say matt lañ ma dañ ma xëy ni ma demal taxane ak ngoon mat taxan taxan laa njëkk njëkk def añi fàttaliku naa ko taxan say yu mat ma génn dem taxanib say yu mat say woowee ba ma ko yanoo ba ñibbisi ku ñuy wax yanqoo ba fay moom sax ren ji la nelaw ci daara ji la newoon moo ma dab say yu ma yanu mu ni ko ceex bi ma dabee da ko ni ceex fab say wi ngaa bëgg ci benn loxoom di dox di waax di waax ba yàgg mun ma na nga ma ne ko Abdou Assis mun ma noonu sax ma ne ko Fall mun ma xanaa ci gan ñi nga ma ne ko waaw mu dox ba mu ne ma kuy sa baay ma ne ko sëñ Mbour Moussa ma daan tekk taxaw daal ma ne moom maam Cheikh Ibrahima Fall ma ne ko waawoo ma ne ko waawoo mu daal di ànd ak ñu ànd ak dem ba mu demee buy jub Aliou mu daal tegaat sa ci sama bopp ma yanu ko daal ñëw di Baye Dame Ndiaye daxan naa ba ñëw say waa ngi nii mu ne ma demal yóbbu ca lopp boobee dañuy def saa bu ñu taxanee bu demee ba bisub àjjuma ñu seet ñun ñi nga xam ne dëgër nañ xam nañoo mën a yanu kenn ku ne ñun la loo mën a yanu yanu ko ci lobb bi yët ko soxna benn fallu moom sëñ fallu Mbàkke àjjuma ju ne booba noonu lañ daan def buñ takkee say bi yanoo ko ëliyee dal ko yóbbu Tuubaa bu newee jox ko soxna benn mu ñaanal bu ngoonee ñu yenn ko bu ngoonee ñooñu ko ñëwaat ëliyee loolu lañ xamoon ci noonu itam noonu lañ jëlbee loolu ci loolu itam lañ dox ba bi sëñ fol itam bu ñu tàmbali nag liggéey mbay waaw mu xam leen nag jumaa ji lay liggéey waxtu bu ne itam suñ mosaan dem ba ruuj jot bu ñu ruujee ba setal la muy def mooy woot dongo yi ni waxtu wan ak sangam kees sangam su ma jullee timis ba noppi naa leen fa fekk dongo yi yëpp dongo yi takk der yëpp bu ñëwee bu ñu nuyoo ba noppi ñëpp nuyoo ko nooy dem toog sëñ Bousso Sabor mooy jotli ak sëñ Ousmane Bousso ñu ngi toog moom daal xam li dama leen di soñ ci liggéey bii ñu jëm muy nawet bi liggéey bi ngeen liggéey kat lépp jumaay Touba rek a tax ma di ko liggéey sëñ Touba dañ ko digal li may ñaan nag mooy lu ngeen fi liggéeyee benn doom bu moo ci am bala benn dërëm su ma ko mënee nalee rawale fenn jëme ko fenn fu dul ci jumaa yàlla lu ngeen yàlla mel ni xorom boobu sëñ Fall day waat day waar du ñuy liggéey xëy na dong yi bëri dañ daal daanu ñuy yuuxu daal di ko ni gaaw na taw léegi léegi ñu daal liggéey loolee ci la nekkoon ak noonu ñu nekk foofu ci ëll yi ci moom ci daara ji ah wax dëgg daawul bëgg ñu xiif daawul bëgg itam ñu mar ndax daf daan wax ni donc kuy liggéeyal Sëñ Tuubaa doo yalwaani bu ma saan béy sax ba noppi gerte gi lépp asaka yi noo koy moom ndax ah, loo am ci ci ci tonnage daal boo amee téeméeri bërigo yaa moom fukk une bi bu ko defee moom lañ koy séddale lu ko ay yére waaw donc yëpp noonu la doon def bëggul kenn ku tilim bëggul ko rafle bëggul ko xiif itam njël itam dafa ko daan nattal njël ak mu ne buñ commencé liggéey ci tool yi daara ju ne dañuy seet ñaata bopp ñoo fa ne ci ay dongo suñ busa sëfoor moo koy toppatoo lépp jox na ko kenn daara ju ne ñu xam la muy dunde nga xam ne fii nawet bi jeex yow doo fi xiif doo fi yàlwaan it fenn tam liggéeyal sëñ bi rek ci loolu dam la sëñ loolu nekk ak noonu ci yar nag ci lépp nag rek waaw ñu xam ko it xam bu wér nag woo xam ne bii maanaam nekk nañ allié bi lañ fa nekk itam tool yi tamit ni mu ko daan liggéeyee mooy ay kilomètres lañuy ñuy béy kilomètres lay guddee yaatoo juróomi téeméeri mètre tool bu ne loolu lay doon doon doon bu dugub ak boobu gerte noonu lañ ko daan liggéey gerte gi bu noppee buñ ko jaayee ci jumaa ji la jëm dugub ji moom lay jox bàkk sëñ Touba ñu tunde ko nekkoon nañ fi nay lu maraam sax ci daar yi la woon waaw nay lu maraam ma ngi ci bopp Touba njëgéej ci daara yi la woon am na daara yu fa nekkoon noonu ñu ci des ñoo ne woon allié bu mu doxee itam ba àgg ci war a tuxu it dañoo ànduwaat ali dañoo ànduwaat dindi ndindit maa ngi fàttaliku bañ fay tuxoo di jëm Touba booba li ci ëpp lépp ba ci néeg Touba Fall boobu nga xam ne sëñ Mourou Moussa suñ bàyyi ko taxoon ëllëg dañ koo yenu ñun ñi ñu yenu ci jën yi wuteeg moom dindi xal aw yoon woo xam ne daa ko jóge ëllëg rek wuti ndindi foofu la ne fii ne néeg Touba Fall boobee sax ca ndindi waa fi mu sampee fii ne sax suñu Ibdou Fra ko yeesalaat moo jël néeg ba barkeeloo ko yeesal foofa néeg boobee sëñ Moussa Fall ko liggéeyoon ndax boobu sëñ Fall néegam yi këram yëpp néeg bu waa ko sëñ Abdou Dieng Balla Fall liggéey Touba Dieng lañ koy wooyee néeg bu waa Touba Fall liggéey Touba Fall lañ koy wooyee bu dee néeg boo xam ne waa Njóobee na ko liggéey ñoom noonu ba ci waa waa looyeen ba ci waa ndokk fi ñu daan gase carrière bi ñooñu maa ngi koy fàttaliku ba tey sëñ bi daal sëñ maamu li ñuy laaj am na solo lool waaw. lenn ndax soo dégg yenn kàddu yum seeri jëmale ko ci Cheikh Ibrahima mbaa mu jëmale ko ci njabootu Cheikh Ibrahima surtout sëñ Mourou Safal seen wayjur wala sëñ Assane mi la yar. waaw waaw ah, ok ndax loolu ba tey sëñ Fallou man nekk naa fa ci moom allié ba niñ tuxoo dem dindi. ba ni ñu tuxoo dem dem Touba Bogo man bi ma fa nekkee di bu ma fa nekk moom dafa defoon sëñ Modou sëñ sëñ Assane ma jur waaw dafa defoon sëñ Assane moom ma jur man benn bis damaa ñëw fi moom bay dem mu ni sëñ Ousmane Bousso xoolal góor si dama boo ko xoolee da ngay def sëñ Modou Moustapha Fall jur sëñ sëñ Ousmane ni ko kii sëñ bi kii sëñ Modou Moustapha Fall ko jur mu daal may woo mu daal ni ko wool wool may woo mu daal ñëw mu ne ma yow Moustapha la jur ma ne ko waaw mu di ma def nii di ma tàpp waaw naa man man li fi ne damaa def nii ma ne ko dee ma ne ko mu Moustapha Fall mu jur de mu ne waaw da nga maa woon ginnaaw di dox rek ma ne ko ma ne ko sëñ bu Bousso xool ko boo ko xoolee da defee def ni sëñ Moudou Moustapha ko jur waaw daal may wax yu bari nag ci moom ci taxawaay yi mu woon ak moom ak yu bari ak sun maam Cheikh Ibrahima toujours it ñun daf noo bëggoon nag lu bokk Cheikh Ibrahima lu ne bu sëñ bi gisee lu mbooloo mi bari bari rek da lay téye yondi la waaw ndax noonu gis dégg nañ ci moom ba tàyyi muy wax ni suuf la ñee ci muñ waaye maam Cheikh Fall la ñee ci ak taalu bi waaw waaw moom loolu moom wax na ko ba tàyyi mu mosaan ne it daañu ko dégg ci moom waaw moom suñ bi la suuf moom la ñee ci muñ muñ gi suuf mën muñ suuf dong la ci ñee ak taalu bi it maam Cheikh ci ñee waaw ndax moom ku ne xam ne suñu Fallu moom taalibe la defoon boppam ab baay faalit la defoon boppam moom loolu moom xam nañ ko ci moom wér a wér wér waaw noonu suñ asan nag moo nu fa yóbbu woon waaw ci diggalam lañ fa nekkoon bi ñu demee ba yi àgg tamit noonu ci lañ bi del saati moom mbirum màggal gii tamit kësule bii tam noo ngi soñ ñëpp di soñ suñ bopp bu wér di ko di ko yox di ko wax ñépp tam di leen xamal ni bis la boo xam ni daanañ gis sëñ Fallu bisu kësule moom waxtu bu ne da daan gonte Touba dem Darou Salaam fanaan naka jekk noonu la def nag diirum lim fii ne saa bu takku saani suuf Darou Salaam lay jullee fanaan fa sëñ Maodo Mamoun ko ba ci ëllëg sa bu fa xëyee kër sëñ aafe ñaŋ bàyyi sëñ Maodo Mamoun ñang mii wala sëñ Fallu di jaar yi fa moom it mu defal ko ay berndeel fa génnee léeg mu da dem këram léeg mu jóge wuti ndindi léeg mu benn feneen waaye daal liber daal moom bu jógee daal Salaam kër sëñ Afi ña moom sëñ Modou Maam ñu ngi doomi day sëñ Fallu itam bokk ma nag xeetam foofu lay wàcc berndeel ko mu soog faa jóge dem màggal gi itam bii sëñ Fallu nelawee bis boo ko sëñ bu Seen def itam boobu man fa la ma fekk ndax bu wàcce guma déedéet boobu yeewi ko guma foofu laa nekk naa ko fa lañ ko tàmbalee boobu maa ngi fi dara ump ma ci waaw noonu la ko sëñ Modou Sy wootee muy dolliku noonu la ko doon defeet ba ba agsi fii waaw waaw noonu la lañ nekk woon ak sëñ bi Touba Bogo Ndindi Alieu foofu daal sëñ bi daal mosuñu koo génn moom fenn moom waaw benn lu ma wax lu ne ndax man ama na jamono yu mu ne Touba Bogo booba daanañu nekk maa moom diggante tisbaar ak takkusaan maa ngi moom képp ak yàlla ndax saa bu nu añee ba noppi mag ñi dañuy génn dem ma toog fa ñu ni ma boo fawee leefaag yi def nii ci baraag bi day woote saa bu fëggee rek nga xam ne sama nopp yëpp foofu lay ne mu ne këng rek ma daw moo ne salaamaaleykum mu ne bisimilaay dañoo daal di ma ne anañu ma ne ko dañoo génnoon de mu ne kon maa yow rek fi ne fii ne ma ne ko waawaaw mu ne kon ñëwal toog ñëwal foofu moom wax na ma fi lu bari man mii de ba ma fay dem falaa laa fekk sëñ Cheikh Khady Fall ci ñi fa nekkoon la bokk ak sëñ Cheikhu naa ak sëñ am sëñ am nogoy nu ñi ñëpp nag ñoo bokk nekk mbuur ci daara ja di jàng waaye ba ñu fay jëlee sëñ bi ba mu ñëwee daa njëkk a ñëw jël ñoom ñett ñii sëñ Cheikh Khady sëñ Cheikhu naa ah ak sëñ am di nogoy ñoom lañ dëkk ko yóbbu ca daara ja sëñ Cheikh Khady Fall mii ku ñuy wax Mamor Ndiaye daaram daaram la ne woon jëw nañ ju ñuy wax Mamor Ndiaye sëñ Cheikhouna Fall jëw nañ ju ñuy wax Youssoufa Touré ku mënoon a bind xasayit rafet loxo lool te la sëñ Cheikhouna nekkoon moom moom jàngkat la woon moom sëñ am nogoy mii daara Ablaye Ndiaye fa la nekkoon sëñ am di ba ba ñooña demee sëñ Assane dellusiwaat jëlaat sëñ am sëñ sëñ Abdou Fall Abdou Fall moom lay wax Abdou Jee daa faatu doomu yaay Jee Seck ak sëñ Assane moo ko sëñ am di yaasin mii ñoom lañ jëleendoo yóbbuwaat Aliya ñoom sëñ Ousmane Bousso la leen sëñ Fallu boole lool waaw ban dellusiwaatee lañ ma jël man mii man Abdou Fall mii ak sëñ Assane Fandiaye ñu dem fekk leen ba tey moom sëñ Bàkke Fall ñii sëñ Assane moo leen fa yóbbu ak sëñ Basiiru Faal Bas Faal moom sëñ Assane moom itam nekkoon na fa waaw sëñ Basiiru moo soxna Adama ñii sëñ Fallu yor yaay sëñ Xàbbaan ñoo bokk ndey ak baay sëñ Bas Faal moomee nekkoon na fa ci daara ji waaw ak sëñ ak sëñ Fallu Faal moom Baye Mbàkke Faal ak yaay mam say Jóob moom bokkoon nañ jenn daara sax te Busra bi sëñ bi gannaaw sëñ Fallu nelawee ba ñu sëñ Modou sañ si Bousra bokkoon nañ fa ne maa ngi moom ak Assane Fa ñooñu lépp sëñ bee leen fi waaw sëñ Cheikh Jëmb Fall mii xalif bi tey nekkoon na sëñ Fallu waaw sëñ Cheikh Khady Guèye moom mi nekkoon na fa ak ñeneen ak ñeneen ñu bari ñoo xam ne ñooy nag moom ñooñu fa jiitu ma wax dëgg fekk waaye man ñii ma la tudd daal moom ñii daal moom ñoo fa bokkoon nekk waaw ndax ba boo tuddee sax lu bokk Cheikh Ibra ndax sa sëñ naar jenn mi nga xam ne mooy taaw sëñ baar jenn bàjjen Soora Faal jur ko nekkoon la ca daari sëñ Fall waaw ndax loolu dafa am bis sëñ sëñ si ak wooma ne ma dama bëgg nga ma seex yi nga xam ne seen bàyyi dañ ko dañoo dañ leen a seexal te ñu nekkoon ci daara ji dama bëgg nga wëral ma ñépp mu ne dama leen soxla ñu wool ma leen man loolu man mel ko sëñ Modou si def la woon ma daal dem di ko wër ba mu def sëñ naar moom ba mu ñëwee mu ne woo nga sëñ naar jeet ko déedéet mun ma ci la ma ne ah, ma ne teg mu ne ma ci la de ci la de waaw boobu boobu yow mi boobu ñëw góob man ne ko waaw loolu de wax du yàlla moom jotuma ko waaye moom moomu ci la woon ginnaaw dañuy dundee woon Cheikh Ibra nag sëñ naar jeet moomu ci la moom it jaar na foofu mu ne waaw loolu sant nag bu baax waaw ndax daara ji noonu lañu fa nekk woon sëñ Cheikh jëmm surtout jamono sëñ Fallou wax nañ ni jàmbaar la woon lool ci jumaa ci woon lool dégg naa sëñ Fallou daan toog ci piliyaan bi du xool sooroor bi comme si ni kee di ci njabootu sëñ Moussa Fall waaw waaw waaw ni ni Moussa kee ak njabootam la bokk bu see sa jëm mii waaw moom it nekkoon fa de waaw waaw loolu de loolu de moom xam nga ñoo sant nag bu baax. waaw sëñ si dem sant ñëpp rek ba ci sëñ Abo Mbàkke mii di xalifa bi soxna maam say jur ko ñu bokk benn baay waaw kon moom itam loolu ba tey ci sëñ Moustapha suñu bàyyi noonu la doon def dafa mën doom yi nga xam ne ñoo sës ci moom joxe ci njabootu sëñ Touba waaw soxna maam say moom ma ak soxna Adama Fall mii ak soxna maam Boussa Fall ma nga xam ne moo jur sëñ Fallum sëñ Mourtala waaw moom tamit mm, ba ci soxna Daba Fall mooy jur sëñ Saaliwu Baay Faal waaw di sama baay mën na la takk woon njabootu sëñ Tuubaa gi ba ci soxna ma Bousso Fall mi ne la bu yàggut dafa amutoon tout tànk waaye nag sëñ Fall yoroon na ko moom sëñ bi yoroon la ko waaw waaw noonu lu sëñ bu daal noonu la demee daal nuyu sant daal ñëpp waaw di waaju bis bi nag ko su rajab bi maa ngi ci soñ sama bopp la isoon ñëpp ndax sëñ Fallu kat moom bis bii nga xam ne ci la jamono ah moom noonu rek ni ko ti bi doxe woon rek moom it noonu la noonu moom jógee rek te la wàcc waaw loolu laa ko waxe woon waaw moom nag gis la boo xam ne ci nun nañ ko fonk bu baax te it luñ man ak luñ mënul nañ ko ci def maa ngi soñ sama bopp di soñ taalib yi yëpp sol doom bi ak soxna yi ak taalib yi ak wëllëri ñëpp boobu ma kenn de soxna maam Marème Mbàkke sëñ Fall it nooy ko ci sant bu baax ndax bis bi bisu bàyyee ma man nag yàlla dafa dogal sëñ Abdou Fatah woo ma boo yëw mu jox ma ko ci nekk boobu la suñu Alaaji Baara nekk xalifa ndax man ñii 2007 laa demoon màkk suñu Alaaji Baara mu yóbbu woon Màkka jërëjëf sëñ Abdou Aziz Fall sëñ Aziz Fall kon moom moo Modou Moussa Fall moom maam Cheikh Ibrahima Fall. sëñ Maamu saan lii moom tey jotaay bi tuwaar kàlla macha allah. Mhm. am nañ eh, sëñ Fallum sëñ bu mhm. di ko ñaanal gudd fan lool te mu ànd ak wér. amiin barke waaye di ñaanal bu baax eh, sëñ Abdou Karim ni nga xëy kon ni ñu ko waxee woon sànq borom makaarimal axlaaq mhm. gudd fan lool te mu ànd ak wér. waaye sëriñ Aziz Fall. mii di ko ñaanal gudd fan loolu te ànd ak wér mhm. lépp di njabootu Serigne Fallou di njabootu kulóoru na moom kañ fu mu ne nii sëñ Mamour moom <laughs> kii man la waaye nag di mhm. beral nuyoo ak ziar sëñ Mamour mhm. mbokk yi nekk États-Unis d'Amérique te di ñu bàyyi xel bu baax a baax ko si mel ni Pape Gora Samb moom mu ngi ci Atlanta jotaay bi daanaka du ko tardé waaye te euh, du bàyyi Fall Ndaw ñi nga xamante ne animateur Dóor waar rek ci rajo borom Lam Fall Center ak euh, waa New York gépp rek ñoom moom ñu ngi leen di ziar waaye Modou Baye Fall Ndaw ñu ngi koy beral nuyu ak ziar bu baax a baax ca New York moom di animateur ñu bokk liggéey bi ndax ak ko jàmbaax tem bu baax a baax waaye soxna Fallou Mbacke ca New York ñu ngi koy ziar bu baax a baax ak sëñ Amadou Dieng mm. waaye duñ fàtte benn yoon sëñ Mohamed Diop Mhm. ñu ngi koy ziar bu baax baax moom it di jàmbaar bu baax a baax ak mboolem njaboot sëñ Modou Aminta Fall mhm. gépp rek fàttewuñu soxna Fallou Waaj waaw soxna Fallou Waaj mhm. c'est États-Unis soxna maam Jaara mu ngoog ndeysaan <laughs> ndax xam nga ñooñu New York lañ nekk ñooñu fi ñu nekk sori na waaye jotaay bi mooy seenu wéttal xëy na tey tudd nañu waa États-Unis ëllëg dinañ tudd ñu nekk Italie Espagne France ba si euh, Hollande Angleterre maanaam fépp euh, si àdduna bi ba ñu nekk si dendug Afrique bii barki dem la ñu jógee Gambie sëñ Maamu gis nga li fa xew mbokki Baye Fall yépp di bàyyi xel jotaay bi kon ñu ngi leen di ziar bu baax a baax sëñ Mamour mel na ni tey moom xaw ma ku la defal lii waaye moom bëgg nañ si loolu te nu ngi koy ñaanal yàgg ak wér ndax tey moom sama sama Baye Fall bi niñ ko solalee nii moom ku la solal waay sëñ Assis moom sëñ Modou Safal a moo ma solal ah, alhamdulilah waaw tey tey waaw sëñ Assis waaye sëñ na ko génn waay wala sëñ Assis Modou Safal dama moo ko ah. def de moom de bëggal nañ si fal Fallou bëggalaat ñu si sa jëmm ji kon ñu ngi koy ñaanal yàgg ak wér rek wax dëgg yàlla bala maa bàyyi kat naa bàyyi nee naa la woon ñett ko séq naa bàyyi mbokki mbokki Cheikh Ibra sëñ Issa Dieng nañ la génn rek saar Ibra Sarr Ndiagne nañ la génn waaye sëñ Baye Tubaarkàlla na génn bokk waaw dana génn <laughs> ndax wax dëgg yàlla am na solo lool ci ni ñu ko defee. est waaw mu ngi noonu. Mm-hmm. ñu ngi koy ñaanal sëñ Aziz mm-hmm. lim la defal nii. Mm-hmm. mu ràpp nga ràppal ko jàmm te mu wuloo ko barki maam Cheikh Ibrahima Fall. waaye sëñ Mamour am na loo ñu waxoon si Baye Mbaye Kane Xandi. loo xëy na waxoon na ko Serigne Fallou xam naa ni foofu ngay tëjee. laataa loolu di ziar bu baa a baax sunu mag Aziz Diop. ak soxna Kiné Ndim As ñu ngi leen di ziar bu baax a baax. jëwriñ Abdourahmane Daw. ndax suñu waxee si weeru rajab bi suñu xel dina dem. Euh, si euh, Serigne Abdou Borom dër bi. waaw ndax moom it Serigne Abdourahmane moom Cheikhul Khadim mhm. ak njaboot gépp jaar si sëñ Cheikh Daaru Rahman mhm. ak sëñ Maodo Habib mhm. ñoom ñëpp rek sëñ Maodo Kéemaan fàttewu kenn waaw mu ngoog kon Baye Mbaye Kande am na lu Baye Mbaye Baye Mbaye Kane Khandi am na lu mu loo xool loolu moom sëñ xam naa dañ koy <laughs> lépp ba beneen jotaay waaye liñ ci indi si tënk rek mooy daal euh, moom daal waxoon na ma na ma Cheikh Ibrahima waxoon na ci xuru Mbàkke ne set bay njëkk toog Alaaji Fallu mooy doon way juróom loolu nag ba ma ko wax sëñ Saliou fi ne suñ borom taw feexal nanu ba fekkee nañ ay alaaji baala te noonu la ma ko waxee woon te booba it daf maa wax ne ma lël ba Cheikh bi mujjee def ci xuru Mbàkke mu ne ko ah, mën a ma say nopp doom ca laa bokk keroog nag Cheikh Ibra daa toog ba mu yàgg mu ne xetuk sëñ Bàmbaa ngi may xeeñ mm-hmm. daan naa gars yi jóg leen borom Tuubaa da xeeñ na ma xeeñ ko faw dinañ ko fi gis mm-hmm. nee ñu jóg taxaw séentu ba mu yàgg am ko daw dikk ne ko gis nañ gawar goo xam ne que ci digg ba façon xacc la war waaye mbooloo ko topp nee na mu ne nañ ko séntu ñu di ko séntu ba am ko ko ca xàmmee daw dikk dee ko ne ko sëñ Fallou day ñëw Cheikh ne nañ ko gàttandu mais fi ñu koy gàttandoo bi mu ñëwee bay jub maam mu summi dàll yi mu ne dàll maraaki su mboq la sol keroog mais ba mu ko summee ngir Cheikh Ibra maam Cheikh daal di daw daal di këf dàll yi daal di koy boq daan doom ñetti jéego yooyu mu jéego wut dem daf këppal ma ci ma dem te ñëw daal di dugg ak sëñ Fallou ci biir ab diir mu génn na ko pi leen jéego yi te ngeen woo tund wi yëpp ñu teg ci seen bët daane te ngeen sàmm ko ba mu gaaw a raaf ndax ku sa bët tegu tey ci tànkum neenu fàllu bi suuf ñu jéggal a doom daane lii rek laa judd daane waaye gisa naa ci kéemaan de yàlla bu mu gaaw doom waaye sët ba njëkk a toog yilif yoon wi Faliilu moo doon bàyyam loola nag bi fi sëñ Saaliw nekk la ma ko wax yàlla dogal na dem nañ ba fekk ayub sëñ Alaaji Baara waaye loolu lépp rek day wane ne Cheikh Ibra mhm. mooy sëñ bu baax mboolem njabootu Cheikh Ibra Fall yëpp mhm. ndax defe naa ñu ngi ci catu jotaay bi a baax itam sëti Cheikh Ibra Fall yëpp ak sëti sëñ Fallu yëpp mhm. fàttewuñ na waa ko sëñ Alaaji Baara Mbàkke Faliilu ndax xam nga sëñ Alaaji Baara bisam di ko ziar baax di ziar baax sunu bàjjen soxna maam awa ndaw euh, di ziar bu baax sëñ Cheikh Bamba Mbàkke moom Alaaji Baara soxna aji Fadli soxna aji Soora ñoom ñëpp ñu ngi leen bu baax a baax di ziar mboolem njabootu Cheikh Ibra Fall gépp nga xam ne nag ñu ngi waajal bis bi nag ñi ñu tuddee maam sëñ Fallou tey sëñ Fallou sëñ bu sàkko ñu ngi waajal sëñ Fallum sëñ sëñ sëñ Mourou Aminta muy sëñ sëñ ñu ngi waajal waaw sëñ Fallum sëñ Fallum sëñ sëñ Mbacke Fall mm-hmm. ñu ngi waajal mboolem ñi ñu tuddee Cheikh wàkk wàkk soxna Kunta Mbacke mm-hmm. ñu ngi waajal soxna Maam Jaara Fall foofu mm-hmm. ci kër Serigne Assane njabootu sëñ Fallou yëpp ñi nga xam ne tey sëñ Fall lañ leen sax ci njabootu Cheikh Ibrahima Fall bi mhm. ñu ngi waajal kon ñu ngi ñaan ci barke sëñ Touba ñu dem ci jàmm ak salaam di siyaar baax soxna Mariama Mbindi nag ak mbooleem njabootu sëñ waa kër sëñ Jilim sëñ Fallu yëpp mhm. waaw ñoom ñëpp ñu ngi leen di siyaar sëñ Fallu Seck ak sëñ Massamba Diouf Baye Fall ak mbooleem lu bokk ci sëñ Jilim sëñ Fallu rek mhm. ñu ngi siyaar taalibe yeeg ñëpp ak njabootu sëñ Fallu yëpp sëñ eh, jërëjëf sëriñ Maamo <laughs> si taxawaay beeg liggéey bu rafet bi macha allah suñu borom sàmm la barke bu Baye Cheikh Ndaw siyaar mbooleem njabootu Baye Cheikh Ndaw bi waaye ziar bu baax a baax sëñ Ablaye sëñ Abdallah Guèye mi nekkoon si caméra bi àndoon seeg sëñ Madieng si mm-hmm. waaye sëñ sekk Diagne bokk si ñun baay Fall yi duñ ko fàtte ñu ngi koy ziar bu baax a baax sëñ Assane Fall nekkoon si réalisation bi sëriñ lamin Ndiaye nekkoon si son bi ak si vidéo bi